نهما شيخ فلو شيخ فلو لاهي نهمة الله رحمة الله نهما شيخ فلو شيخ فلو لاهي نهمة الله رحمة الله نهما شيخ فلو شيخ فلو لاهي ابن خادم رسول الله نهما شيخ فلو شيخ فلو لاهي يا دمس نمام جعل كل نعم شغفل شغفل لاي يا دمس نمام حبيب الله نعم شغفل شغفل لاي يا دمس نمام أحمد الله نعم شغفل شغفل لاي من تيما ويلا لوجه الله barab bii nga toog nag président magal bi ñaan li nga bëgg ndax kaa borom ba boo déggee ñu naan ah borom baraag bi Seexul Xadiim nekk ba nga xamante ne sëñ Fallu Mbàkke dindi na baraag ba fa newoon ñu def ñu def ko tableau or ba fa newoon moo nekk nii ñeenti koñ yi la wër ba la sëñ Touba ne woon bu dul moom lañ indi fii yàlla na nga doon président de la république te muy njiglaay réew mi te yàlla boo taseeg dara lu la naqari yàlla nga taseeg jàmm ñi nga yéene bëgg a boot réew mi yàlla nga ko yàlla defal ci barke sëñ Touba mi mu nekk barke barab bii nga nekk amin yaa nema Cheikh Fallou Cheikh Fallou laaye magi Cheikh Souhaïbou haqiyullahi nema Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay magi Seex Abdul Xaadir imaamul laay nama Seex Fallu Seex Fallu laay magi Seex Saalihu miftaaxul laay nama Seex Fallu